boo xam tour de table ku nekk joxe ci xalaatam très rapidement te bëggoon naa ko gën a yaata sax mais waxtu wi ñu wax lépp mais plage wu Anse Bernard bi nga xamante ne nii ñu ngi koy wax depuis sànq ñu relever fa encore une fois de plus beneen scandale ah, de détournement de terrain euh, ban njeexital la am wala lan lañ ci mën a jàpp itam très rapidement. bon liñ ci ñëkk euh, a gis mooy euh, du Anse Bernard kese ah waaw. maanaam Sénégal la waaw Sénégal moo moo moo ni mel parce que dañoo dem ba wax dëgg yàlla euh, jibi le mal est très profond euh, li tax le présentement Ousmane Sonko sànq mu naan maa ngi wax gars nañu patient xam na ko gis ne kuy ñëw di yëkkati fekk ko fondement bu baax au minimum di nga jëg gasaat ay dee refondé ba mu taxaw nga soog a yëkkatiwaat. Mhm. phase boobu lañ toll. gis nga problème foncier ak euh, problème littoral bi bi ñuy bind la projet ci préface bi le président Bassirou Diomaye Faye daa am lu mu ci bind. dafa ne le projet est là pour raccorder et soigner le fractures sociale fracture sociale mooy maa am doole maay am amoo doole doo am. Mhm. maa doole maa lay tëj amoo doole doo ci mën dara loolu nag ngir raccorder ko faj ko impérativement mm-hmm. il faut des actes yoo xam ne état da koy mm-hmm. su ma frère wax na ko sànq Yankuba xam nga fekk lu ñëkk bokk askan moom ko ñëpp moom ko muy domaine public mm-hmm. yow nga am sañ-sañu ne lii dama koy jëlal sama bopp te jël gi nga koy jël c'est pas du ressort publique mais pour yow la ak sa njaboot. nga bëgg ne da nga bëgg a tëddee noonu état du Sénégal xam nga lan la. lan la état du Sénégal bàyyi la ci kër mooy injustice sociale yi nga xam ne nit ñaa koy dund. Mhm. loolu la ñëw ngir faj ko. te problème bi dafa yàgg je me rappelle Pierre Goudiaby Atepa. c'était en 2019 2018 et cetera 17 amoon na fi benn mouvement boo xam ne doon na wax ci wàllu littoral bi. mais nit ñi ci bëri daaw ñoon comprendre trajectoire bi parce que ñoo jàppoon ne mbiru politique la ñu bari ñu moom ci littoral bi duñ sax ay sénégalais grand mhm. maanaam li nga xam ne tey maa ko moom doon Ablaye moom moo ko moom Cheikh Omar moo ko moom ñu am accès ci suñu suuf am accès suñu ndox am mhm. accès suñu géej war a sagu loolu la ñu jël jox ko ay étranger étranger yu téye ko moo ndax état boo xam da nga ñëw pour raccorder et soigner les fractures sociales da ngay bàyyi loolu mu jàll. Mhm. déedéet jubluwuñ ci xeex de defuñu bras de fer mais li ñu moom rek la ñuy jël te li ñu moom nag pour nga jël ko da nga am foo koy jaar. Mhm. foo koy jaar mooy da ngay xam li nga moom fan ak fan la nekk da ngay auditer boo auditer da ngay tirer des perspectives par rapport ak yow fii nga bëgg fii nga bëgg a jëm. tout à te gis nañ ni domaine littoral bi. dafa di domaine bu stratégique ndax ndakaaru la ne te fi mu nekkee ci ndakaaru dafa doon foo xam ne du n'importe kii moo fa mën am kër le président Ousmane Sonko le premier sàgg dafa wax ne am na ñoo xam ne am nañ fa ay trois mille et quelques ñii ay quatre mille et quelques hectares mais grand ci littoral loolu naka la ko mën a nit nit mën a moomee mooy li suma frère wax dafay am ñoo xam ne dañoo ñëwoon ëllëg ñu dundal Sénégal mais dañoo dundee sénégalais yi dañoo ñëw paa ngir defar Sénégal mais dañoo ñëw ngir defaru defaru boobu nag ñun bu fekkee dañuy prôné une rupture systémique mooy foofu lañuy ñuy tàmbalee li naan ku ndëbin rey sa maam boo gisee lu ñul daw bu ñëpp fexee nag ndëbin du dee te daam fu jëm fi ñu jëm mooy dafa am loo xam ne dañ ko promettre Sénégalais yi dañ ñu leen leen bu ngeen defee ba dénk ñu lii nga xam ne moom mooy seeni suuf seeni alal dana dellu si waat seen loxo promesse boobu nag moom la ñuy topp mooy fépp foo xam ne sénégalais am na fa suuf fépp foo xam ne li ñëpp bokk ñëpp war nañ cee jot te def ko ñu dem foofu lijjanti loolu hmm. lijjanti bi nag du ci xeex ak xuloo ci lan lay le président waxoon na ko jour bi muy def sensibilisation ci wàllu sport ci hmm. plage bi hmm. dafa ne taax yii di taxaw yëpp te teguwul ci yoon bis bu nu dénkee réew mi den ko del delloo ko askan wi mooy lii mooy dinañu fexe ba lépp loo xam ne askan wee ko moomoon mu dellu ci askan wi. Mhm. xam nga kenn koo xam ne da nga ñëw yow règle yi nga tëral sa bopp mooy man du sàcc du ma jël lu ma moomul du ma lekk alalu askan wi mais kooku est-ce que dina bàyyi ñu ngi ñuy torpiller askan wi noonu. Mhm. déedéet moo tax mu sommes dans l'obligation dans une obligation de raccorder et de soigner cette fracture sociale. Mhm. mooy fexe ba li nga xam ne mu askan wee ko moom. mais mu dellu ci askan wi askan jot ci daal. askan wi nag moom yaatu na ku ne ngi ci du caagi ne damay fekk Cheikh Ousmane mu fa am am mu jaar yoon ma ñëw di ko teg daan déedéet mm-hmm. dañ ne képp koo xam ne am nga ci yëf yii moo xam ci suuf moo xam lu mu ma doon amin woo xam ne jaarul yoon. Mm-hmm. des na la yóbbu ci teg ci yoon des na ko jëlaat delloo ko askan wi. donc ñu nekk ñu sur des guerres euh, euh, maanaam personnel ak ak ak nit ñi mais li ñu bëgg rek mooy alalu Sénégal lay delluwaat seen loxo. d' accord c' est important monsieur Ousmane alalu sénégalais yi la ñu wax di rawatina scandale boobu ca wàllu Anse Bernard euh, yow sa sa jàngat lan la très rapidement. xam nga <clears throat> foofu premier ministre waat tey muy plage Anse. Hmm. yaa ngi xaw bu wax na ko léegi. waaw fooye kaa yu ñu bëri. fooye nañ ci hmm. maanaam plage mythique la. Hmm. mais Anse ñun dañ faraan jógee. topp code bi grotte yi noonu jàll ba ponton. c'est mm-hmm. tey loolu mënatul nekk. Mm-hmm. parce que ñi ngi koy morcelé. Mm-hmm. plage u Anse maanaam lieu bu stratégique la kenn waru fa tabax. xam nga lu nekk ci ginnaaw. lan moo nekk ci ginnaaw. résidence su première ministre. xam nga lu nekk ci ginnaaw. résidence su chef d' état major yi. SEMGA maanaam chef d' état major des forces armées le haut commandant de la gendarmerie ak le chef d' état major de la marine. ak résidence su premier ministre foofu war nga fa tabax benn site hôtellerie ak palais de la république donc xam nga réew caaxaan la loolu dafa lay won degré de je m'en foutisme bi ñu fi nekkoon nekk ñoom sécurité réew meeg enjeu réew meeg lu stratégie ñoru leen ñoom lu duusal seeni poche leen ñor dafa am zone yoo xam ne maanaam nit musta xalaat ni état dana dem ba di ko jaay mm-hmm. fu mel ni Anse mais yaa ngi Anse foofu li ko wër zone militaire la corniche bi dagg plage bi noonu mais guddi boo fa taxawee patrouille militaire dala fay fekk. Mhm. au temps xaw ma nag léegi. Mhm. au temps. avant quoi waaw. patrouille militaire dala faraan parce que zone militaire la. foofu mooy zone bi gën a stratégique wala bokk na ci zone yi gën a stratégique ci réew mi. Mhm. nga xëy bis def ko benn cité hôtelier nit ñi di fa dugg ak génn dem ak ñëw bi mel ni tulleeg maale loolu sécurité la. du sécurité. du sécurité ci réew du sécurité ci président du sécurité ci autorité yi dëkk foofu. Mhm. beneen bi askan bi. plage en seen moomeel la seen dund la seen histoire la récupéré nga fi ñu ni wax euh, nu mu tudd piscine ba Mermoz noonu la meloon comme ans mhm. ñi dëkk Sicap et environ yëpp miin nañ fa fa leen daan dem di sangu tey foofu lañu tabax euh, seen penthouse yooyu yëpp wër ko mooy boo wàccee Radisson dawal tuuti mhm. léegi bu yàggee Sénégal Dakar population bi pour ñu accéder ci géej dañuy fay. alors que autant foo nekk il te nga jéggi tali rek jot ci géej gi. c'est criminel man li premier ministre def laa d'accord. képp ku fa am suuf même droit boo mun dem nañ ko nangu. fam yoo xam ne c'est des questions de sécurité nationale ça ne se négocie même pas. bul jéem a xam sax ku nekk ban titre la yor. te ce ku jëndul lu jaarut yoon. Mhm. buñ ko nangoo ci yow bu mu la bu mu la metti mhm. nga laal nga sànq foo am solo mooy wàllu plage yi ce qui est ñu autorisé yëpp accès bi c'est c'est pas gratuit mhm. alors yi ñu autorisé wul accès bi nekk lu nit ñi di lab di fa dee xoolal tey Mermoz gis nga Ferradison nekkoon ay toolu mhm. papaaya fa nekkoon mhm. ñu dëkk si Kaap côté boobu yëpp miin nañ ko benn toolu papaaya fa nekkoon benn paa nekkoon fa boo ko poussé tuuti fi ñuy wax piscine ba moo fa nekkoon ñun ñëpp foofu lañ daan sangoo tey kenn mënatu fa accéder yàq nañ ko indi fa seen bloc de beton yi maanaam yenn ko tey fatt nañ ko mhm. y compris Almadi plage sunu gaal tey demal tey benn nit a fa yor tabaxu nu ko neexee fàtt ko empêche nit ñi ñu accéder ko waaye yow yaa xayti boo tabaxee loolu lépp ba nit ñi na ans moom di leen ko bàyyi gis nga ans nombre de jeunes bi fay ñëw par jour mhm. nga ne da nga koy tabaxaat c'est mythique quoi ans c'est toute une vie maam ñëpp a fa dem mhm. nga xëy gis na da nga koy tabax xoola nañu raser raser lépp maanaam brique bu fa nit tabax nañ ko raser bàyyi ko Sénégal yi am fa accès ni ñu fa amee woon accès moo tax maa ngi dégg premier ministre di wax di jox ay direction le ministre de. de l'urbanisme mu fexe ba aménager foofu nit ñi mën a parce que foofu tam wàcc bu metti la. waaw xam nga dafa ñoo xam ni en fait des fois da jàpp sax ni ñooñ ñuy wax guddi. ñoom noonu la ñu yoree woon Sénégal degré de méchanceté bi dafa sori quoi. maam yow bawoo dara lépp da ngay jaay. du moment que am ngay milliard du moment que am nga benn appartement booy jaay un million de dollars yow tu t'en fous maanaam yéen population bi dee leen daal ñun ñu dund. Hmm. yaa ngi imaginer ñun ñiñ fi jëlee buñ fi toogaatoon deux ans. maanaam ce serait catastrophe. est-ce que duñu jaay suñu kër yi. et juste pour rappeler. Hmm. historiquement même cette zone là li nga doon wax sànq. c'est hmm. la sensibilité de. zone boobu zone boobu. li tax ñu tabaxoon fa ay lagon dafa am lu ko justifié bien sûr a am. bien sûr mm-hmm. moo taxoon ñu tabax ko foofu. defaale boîte de nuit bi ñaanee ko. tout à fait dafa stratégique quoi. mais léegi dañu dem di fa yokk yeneen yoo xam ne dafa anarchique te dañuy dem jox ko suñu mbokk sénégalais yi nga xam ne feneen lañ sosoon ñi ñu waxee. ñu jaay ko ñeneen ñu ñëw jaay ko ñeneen ñu ngi tabax. temps yële Dame Ndoye euh, Dame Dame Mbodj ak Clédor am na benn liggéey bu ñu ci def demaat ils ont créé une autre ville mhm. ginnaaw palais de justice si te dañuy dem ci ruq yoo xam ne malheureusement le commandé du duñ fa dem amuñ fa accès foofu te xoolal foofu ni mu ne ginnaaw palais de justice ñun dañ fa daan wàcc mu montagne xaw a accidenté ni nga jël tam bërëbu révisé kaay la woon sax pour ñu bëri parce que c'était calme bërëbu révisé kaay la woon léegi ñoom ñu jël ko aki aki moo ko ba pare au lieu ñu aakimoo ko def benn projet boo xam ne xëy na ñëpp mën nañ cee accéder déedét ay appartement 3 millions de dollars ko benn genre promenade des des Nice promenade des bu Nice mhm. duñ ko def noonu buñ ko newoon sax c'est privé tu vas y accéder nga fay sax xëy na dañ ci am benn accès privilégié mhm. mais dañ koy jël tabax ko beneen monde la ay yoo xam ne beneen monde la sa dañ ci tabax xeetu appart